jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal dama naan Cheikh Anta bi mu fi jógee ñu bëri yaakaaroon na ni xam-xam jeex na Sénégal mais jëmm ji ngeen gis ku ko gis xam ni savant moo toog ñu bëri dañuy karaay émission am ndax xam-xam bi nga xamante ni mi ngi koy wax muy monsieur Fall ñu gën koo xam ci monsieur Fall bio borom cabinet borom cabinet boo nga xamante fi la chifa am fi la fi la tawat gu bëri fii lay fii lay fii lay fajoo tabaarakallah consultation am euh, mën naa ni dina ko def ci ci ci ci anam yi nga xamante ni moom la ko client bi soxlaa. ñu fas ni waxtaan ak moom jëm ci le 16 mars ndax ñëpp xam nañ domaine bi muy wax domaine astronomie domaine domaine domaine domaine jinne domaine leneen ak leneen daf ci bëri xam loolu ñu jëm ci le 16 mars procès Ousmane Sonko bi damay faw ci weeru ba ci wéwu bay ñu ni ndëgg sërëx la. ndax xale yi dinañ génn dinañ jaamaarloo deret dina tuuru ndax loolu ay sacrifice la wala leneen ak leneen monsieur Fall am na ci ay révélation yu mu ciy def waaye dina def ay révélation ci làmb ñi nga xamante ne amoon na démb ci rëg-rëg saa Thiès ñëpp ne nañ làmb ji làmbu jinne la làmb ji ñaari victoire la ci am ñaari jël ci benn tàkkusaan nee nañ ay rëg-rëg dafa am jinne te monsieur Fall ko ko xam-xam ni ku maîtriser wàllu jinne la ku maîtriser domaine yu bëri la ndax yemul ci euh, wàllum astronomie kese chercheur la professeur la bu toog kaamil waaye balaa boobu dañ koy bàyyi moom monsieur Fall mu nuy mbokki internet yi nga xam ne ñoo koy seetaan monsieur Fall bismillah aouzu billahi min iblis as-saytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bismillahi rahmaani rahim wal asri inna al insana la fi xusrin illa allazina amanu wa amilu solihati wa tawaasaw bilxaqi wa tawaasaw bisabri wa tawaasaw bisabri wa tawaasaw bilmarxama ulaika asxaabu lmaymana wallazina kafaru bi ayatina hum asxaabu lmasama alayhim naarum musada mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu di leen daral di nuyu télé bi di nuyu képp koo xamante ni rek euh, yaa ngi ñuy teewlu ci jamono ji ak ñëpp ñoo xamante ni rek ay soppey euh, monsieur Fall le professeur suprême nga euh, di nuyu xalifa généraux yi suñu borom guddal seen farwéral seen cër dooleel leen ci seen liggéey. amiin yaa jërëjëf monsieur Fall waxtaan bi balaa ma ko tàmbali. fan yee passé sa dernière sortie da nga am loo waxoon mu jur polémique nga ni nit ki moom moom jëmm ji moom moo mag tur bi ñu bëri génn nañ commencé woon di démentir xëy na am na ñoo xamante ni dañ ciy jaare ut buzz am na ñoo xamante ni xamuñ niveau xam-xam bi ngay waxee moom moo tax est-ce que mën nga ñëw dikkalaatal tey ci 2 wala 3 minutes nga leeralaat li tax nga waxoon ni nit ki jëmm ji moom moo mag tur bi bismillahi irrahmani irrahim hal ata ala al insan xiinu min aldahri lam yakun shay'an mazkuro inna xalaqna al insana min nutfatin amsaajin nabtalihi fa jacalnaahu samian basiro ñun nuyu la waat dellu siwaat ci liggéey bi ci lan ci li nga xam ni dañ ko war a leeral ngir askan wi mën a gindiku ndax boroom xam-xam bu gëstoo ba am lu mu xam te li mu gëstu mu wér ko suñ borom yenn yi mu xamal la ko mu jaar ci tasawuf mhm. yenn yi nga jaamu yàlla ba sa ruux set nga am yu bëri yoo xam ne yàlla dana la ko xamal ki nga xam ni tollul fenn moom bu ko neexee ñu ne ko jant wi génn na mu taxaw ne génnul yow mi gis jant wi da ngay xam ne rek gis nga jant wi mhm. ñu dellu si ci tur ni ma la ko waxee woon keroog ma ni la nit ki bi mu juddoogul ba ko suñ borom di waajal dafa am préparation bu ko yàlla préparé te loolu sëriñ bi ñaan il faut que mu comprendre loolu pour mun a faj aajooy jaam boobu ndax bëri na ay mbir yoo xam ne nit dana ko weddi te xam-xamam àggul ci mu mën a natt loolale ba xam ci ban at àndaar la tegu suñ borom dafa bind nit ci ñetti wàll muy ruux jëmm ak esprit léegi nag jamono bi muy sos nit waaw hal ataa ala al insaani xiinu min ad dahri lam yakun shay'an maskuro am na laps de temps boo xam ni temps bu gàtt la nit ki lam yakun am maskura moom mënul woon nekk loo xam ni dañ koy mentionné ni lii nit la wala lii daral te yàlla mu ngi koy jox foofu tur mm-hmm. woowee ko insaan léegi insaan boobu bi ko suñ borom di préparé dinaa ci ñëw nan la ko préparé ak an atuwaar yi mu ko préparé ba mu nekk nit ba taxaw ñu dog koo identifier léegi Mouhamed Amine li ma la bëgg a laaj mooy. Mhm. ñun suñu jëmm yi. waaw mi nut fatin am saajin lañ tàmbale woon loolu la la ndox. ndox est-ce que jamono boobu noonu ndox moomu mun nga ko jox tur. te yow yaay ndox mi. Mhm. ñi jàng biologie xam nañ li may wax. waaw parce que code bi lépp ci benn la commencé dagg dem. léegi ndox moomu noonu moo war a nekk ji mareem ba ñuy wax moo war a nekk Sofia ba ñuy wax moo war a nekk Awa ba ñuy waxi waaye ndox moomu est-ce que di nga ko fekk ci biir ndox moomu nga ne ko Awa déedéet foofu suñu borom at position bu nekk da koy jox benn tur. te ndox moomu kum takk sax nga dem raxasi ji nga dem raxasi ji ko. Mhm. tur yàlla rek ko mën a laabal. Mhm. léegi nag léegi Marème bi nga xam ne tey moo nekkoon ndox moomu keroog bi mu nekkee sperme suñu borom lan la ko woowee. mi euh, wala xad xala insaana min sulaalati suma tiin su ma ja'alnaahu nutfatan fi qaraarin makiin léegi jël nañu mareem boobu dem def ko ci dans un reposoir sur et solide. léegi sperme bi moo moo war a indi jëmm ji taxaw ba pare ñu doog ko identifier man loolu laa wax dama ni tur li taarafu laa wax ci euh, euh, émission ba ngir ñu identifier ko. Mhm. identification signifié wul ba tey noonu nga tudd ngir ñu xàmmee la. léegi dinaa ñëw adduna bi yëpp mënuñ leen di woowee ee nag. ee léegi nag identification boobu si biir création bi nit ki kenn mënu koo jox maanaam tur léegi nag sperme bi bu jógee foofu dem adhérence après dinaa si ñëw jugee embryon jugee foofu jugee dem dem chair jugee fa dem os doo ko dem transformation nouvelle création ba suñu borom nag màggal fa boppam léegi nit ki doo ko taxaw ñu tànnal ko nag heure ak yooyu yooyu dinañ ci ñëw ci kanam. ci ngay xamee ni nit ki bi ñu koy formé formation bi mu jaar est-ce que mun nañ koo préciser tour est-ce que foofu mun nañ ko préciser tour déedéet kon xamaguñu ko kon léegi xamaguñu sax ndax dana juddu wala du judd mm-hmm. waaye keroog ba mu ba mu ñëwee ba préparation bi mat fi ko suñu borom jaarale noo munoo ko fa jox benn tur mm. loolu ci science laay njëkk waxee pour ñi jàng science comprendre lan laa wax mm. léegi nag ñu doo ko dem ci spiritualité lu tax jëmm ji mag tur bi waaw léegi jëmm ji ñett daje ci moom léegi ginnaaw ruux la jëmm ak esprit bi léegi matière bi léegi tur bi lan la léegi su ma la laajee noo tudd nga ne ma Moussa léegi ma ne la ana Moussa looy wax fooy teg sa loxo. naan maa ngi nii. fi nga teg est-ce que loolu mooy Moussa. loolal la. ci Moussa la bokk. mais dënn la mais ba tey mënu goo xam ne loolu musaa amu fa place bu ma ne la ana Moussa nga ne ma maa ngi nii ma ne la fan nga ne nii ma ne la loolu du Moussa loolu lan la nga ne ma lii dënn la kon benn cër nga teg. te loolu du Moussa bu ma ne la Moussa nga ne ma Moussa mooy lii yëpp. léegi dèjà kon yow riir nga sax ci sa maqaama ndax yow mi wax sax yoo xamoo yow yaay kan xamoo foo nekk. est-ce que comprendre xam naa li léegi nag bu ñu dellusee. Mhm. ci wàllu roox. léegi roox nag ak jëmm ak esprit bu ñu dajee ci nit doomu aadama bi tur bi identification la waaye taxul ba taxul ba léegi nga am accès ci nit ki. Mhm. taxul ba tey nga am accès ci nit ki léegi tur boobu nga koy woowee kàddu gi ngay maanaam kàddu giy jëm ci moom dafa am influence bu muy def boo xamante ni après moom mooy tax collectivité bi am diggante ruux jëmm ak esprit bi ak matière bi ñu booloo léegi doo ko mën a wuyoo tur bi kon léegi am bi luminosité luminosité bi si nekk nga xam ni euh, li muy chargé ci lumière mhm. moom mooy dem lobse sa colore selon le contemplateur léegi tur bi mu tudd moom tur bi mu tudd ñu di ko ko woowee tur boobu noonu jotewul ak jëmm ji jotewul ak esprit bi ak am bi dara jëmm ji rek la ñu bëgg a xàmmee ngir ne ko yaay dew loolu moo waral euh, yonent bi aleyhi salaatu wasalaam keroog ba mu suñu borom fu mu ko woowee Muhammad yépp benn da koy sant wala mu mu muhammadu rasulillahi wallazina maahu ashiddaau ala alkuffaari wala mu ñëw maakaana muhammadin aba ahadin ngir cité ko waaye tur bi mu xam tur yu yonent yi tudd ak ñun suñuy tur bokkul ndax tey tey duudu lu muy firi rama lu muy firi isaa lu muy firi kenn xamu ko mais turu yonent yi dafay dafay dafay tegtale seenu njàmbaar loolu danañ ci ñëw insha allah ngir nga xam ne kon tur dafa am ay position yoo xamante ne nii si ngay doog a comprendre tour dëgg-dëgg ban jeexital la mën a am ci nit. macha allah waaye. dinaa ci ñëwaat. waaw parce que li ma bëgg leeral ci kanam laa koy leeral bu <laughs> ñu kon ne beneen question. incha allah waaw allah ndax euh, waxtaan bi dama bëgg tey euh, sénégalais yi jàngat ci lu bëree bëree bëri fi may ñëw moo ci wàllum gént. Mhm. ndax. bëri na ay firikatu gént macha allah mais am na ñoo xamante ni ñoom du ñu soxlawuñ firikatu gént ndax dañ naan lu ma gént man dama koy gis. Mhm. lan mooy waral loolu ndax dafa am lu leen di xibaar si du leen di jox si information bu ñëwagul wala lan moo tax nit ki ne man lu ma gént dama koy gis wala man lu ma gént bu ma xëyee dama koy fàtte wala yooyu noonu lan moo koy waral. bu ñu ñëwee ci laaj boobu ndax en général gént sa annonce l'événement réel. léeg-léeg gént dafay ñëw di tegtale mbir yoo xam ne yu jub la ndax laqad sadaqa allahu ruya bil xaq la tadxuluna masjidal xarama insha allah gént lu am solo la ci diini lislaam waaye dafa am yenn ci gént yi nga xam ne nit ki moment bi mu koy def du nekk ci royaume bii waaye day fekk moom ñu convertir ko mu nekk sur le royaume satanique mhm. léegi nag gént boobu nan lay amee mooy tey esprit bi nga xam ne dafa possédé nit maanaam euh, jinné bi nga xam ni dafa transformé en énergie impulsionné wu ci sa biir esprit ba récupérer sa souffle d'énergie décoder say code ba nga xam ne tey mun na am connexion sa diggante ak moom mm-hmm. mu bëgg la wan ay mbir yoo xamante ni yow soo defee sarax yooyu tôt moom dina am Euh, euh, kii ci yow accès ci yow pour mën laa defloo li lim la bëgg a defloo te dootoo ko mun a bañ ci diggante boobu jinne ji mun na jaar ak yow lu yàgg ci ay mbir ba mën a ba mën la ibbi léegi nag su boobaa nag gént yi mu lay wan après gént yooyu so nga koy gis sa bët di xëy defe ne yow dafa am lu ñu lay wan te yow mii gént loolu chaque jour yaa ngi ci ay tolof-tolof mm-hmm. yow miy gént ne loo gént gis ko munoo fexe ba gis yow ay xéewal yu la mën a jëriñ mm-hmm. mënoo gént tawat ji nekk sa yaram yan sarax nga mun a def pour wér mënoo gént tey sa tëju gi lan moo lan nga mun a joxe ngir wér la plupart ci ñooñu ñoo gën a fees ci sëriñ si bu ñu demee dañ lan la man de damay lu ma gént dama koy gis. te mhm. nee nañ ma sama rab bi daf may aar bu ñu ma tàqale ak moom. léegi nag nga gis ne kon moom mi nga xam ne day gént loolu mu nekk ci ay jafe-jafe est-ce que kon Mouhamed Lamine bu fekkonte ne kooku waaw rabam rabam boobu noonu lépp lu mu ko wan da koy gis ndax du ko wan lu koy jariñ waaw te beneen bis topp mooy léeg-léeg esprit bi wan la koo xamante ni xamoo ko mu ne la kii sa noon la wala mu wan la koo xamante ne da ngay da ngay gis mu yor jaase di jëm ci yow mhm. boo xëyee doo ko nuyu wala nga wala esprit bi sax di la wan koo xamante ni ni yow yow euh, da koy rus muy sëy ak yow te doo ci mën dara ba ci sa doom ba ci si ku la gën a jege ba ci koo xamante ni sax xamoo ko. waaw mu bañ a jël image di la dikkal. te loolu yëpp aussi mënoo ko identifier te boo ko gisee tamit mënoo dem poñe kooku ne ko lu tax ngay sëy ak man. kon spiritualité dafa nekk lu doy war loolu mu lay wan nag ci gént su lépp dala koy def ngir tromper la. Mhm. loolu moo waral gént ñu war ci teey kon kii gént ñu ne la sa rab daf lay aar sëriñ ba nax na la ndaxte rab dèjà mënul aar nit. ndax suñ dem yaakaar ni rab bi àndal dafa leen di aar ba mo sëriñ bi ne leen bu leen ko tàqaleeg yéen kon rab mënul aar nit rab nu muy aaree nit ndax suñ boroom lan la wax wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min xaysu laa yaxtasib te wa man yat wa man yatawakkal ala fa huwa xasbu kon léegi zalika amrihi qad ja'ala llaahu bi kulli shay'in qadra wallahi kon nan la nit jinne mën a aare nit booba fu malaaka yi ne fan la malaaka yi nekk jamono boobu léegi est-ce que xam nga ni ki nga xam ni mhm. dafa am protection divine dafa am ñetti ñaar yu yàlla def ci moom te nit ki yàlla ay malaayika la ñu booleel mais boolewuñu ak benn yoon mhm. jinne pour mu ñuy aar wala mu ñuy wattu amul fenn ci alxuraan benn aaya wala benn xadis buy dëggal lii ma wax bu buy dëggal wax jooju te ñun suñ doxantoo ci alxuraan gis nañu suñu borom ne ñi nga xam ne dañoo sax ci istiqaama tatanazzalu alayhimul malaikatu an laa taxaafu wala taxzanu xanaa ñooñu am nañu protection tatanazzalu alayhimul malaikatu ange yi ñooy wàcc seen ci ñoom an laa taxaafu wala taxzanu te wa absiru bi jannati lati kuntum tuadun nga demaat ci alxuraan feneen suñu borom ne ata amrullahi fala tastaajiluhu subhanahu wa taala ama yushrikun ñu ne yàlla mu ne yunazilu almalaikatu bi ruuxi min amrihi ala man yashaau min ibadihi an anziru annahu laa ilaha illa xam ne dañoo sax ci laa ilaha illa ana fattaquni bokkaale wuñ seen borom ci dara ñooñu malaayika yi ñooy wàcc di leen wattu in kullu nafsin lamma alayha xaafis mm-hmm. est-ce que dégg nga fa jinne kon jinne nu mu lay aare jinne mooy rab mënta aar nit nu mu lay aaree kon aaye alxuraan ji danga koy dàq na saxal loola. waaw sëriñ yi jàppale ñoom seen i jinne leen di aar nag. mooy bokkaale borom ba pare réer xam nga réer. asile te Sénégal dañ naan boo amee jinne dañ lay ragal ak yooyu noonu. sëriñ bi ñoo ñu di wax dañoo amee jinne ndax mës nga ciy gis koo xam ni caméra taxaw na mu ne jinneem yëkkatil ma siège bi tegal ma fi ndax jinne bu mënee tabdil xaalis wala mu def leneen ndax mënu may ndox nga naan mës nga koo gis. ku yónni jinne ne ko ndox ma naan. waaw déedéet. ginnaaw am na jinne comme moom moom jinne ji te moo koy contrôlé léegi nag faaw nga xam ko lu ñu tuddee de d'énergie jinne dafa am énergie bu diis bu doy fan la nit di àgg ba am quantité d'énergie boo xam ni mun na véhiculer benn jinne loolu faaw nga jaamu yàlla mm-hmm. doo moy suñu borom mm-hmm. di maanaam di fegu ci sa bët. ok sëñ bi nga baal ma falaa doon jëm si ndax am na sama classe gi ñoo xam dañuy taxaw ni am naa 1000 jinne am naa ñaar téeméeri jinne am naa 300 jinne wala am na ku ni am naa borom 600 xaw ma ñaata jinne yi loolu est-ce que nit benn nit mën na contrôler jinne yooyu yëpp. d'accord mooy li ma la wax sànq dafa am loo xam ni ku xam xam-xamu tasawuf gëstu ba xam doole jinne xam énergie jinne xam esprit jinne xam capacité wu jinne ak pesanteur am soo déggee kuy wax ne moom dafa yor jinne yu bari di ñuy dox ñoom moom muy dox ci seen ci jinne dox ci ndigalam te du xutbul xaws dina la def ay ree hmm. ndaxte jinne doomu aadama fi muy tollu ba am quantité d'énergie bu doy boo xamante ni quantité d'énergie boobu ci lay mën a véhiculer maanaam ci lay mën a joxe ordre jinne ne ko defal mu def bàyyil mu bàyyi amaana nit ki day ëpp faw mu ëpp jinne bi force benn faaw mu ëpp ko énergie ñaar faaw mu ëpp ko xam-xam ba mun ko convaincre mhm. faaw tamit aussi mu gën koo ragal yàlla léegi nag bu lii yëpp amul waaw yow léegi taux d'énergie bi ngay peser mhm. matul amaana sax yoroo énergie bu doy mhm. nga ne yow mun ngaa véhiculer di tuubal ay jinne di leen dugal ci biir diine islaam di leen julliloo nga te yow mi yow mi leen tuubal sax mënoo julli wala jàngoo alxuraan te demoo ci alxuraan fenn foo xamante ni yonent bi salaay salaam moom mi ñu gën a màgg demal ci alxuraan keroog ba mu demee euh, maanaam fële taayif ba mu toogee ju julli ñaar rakkay ñaar ñaar rakkay subay moom ci bopp moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam laax de suñu borom moo ko xamal ne jinne ñu ngi ko doon de qul uhiya ilayya annahu stamaa nafaru min al jinni te fa qaalu inna sami'na qur'anan hajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi wala nusrika bi rabbina ahada waa nu ñuy def aaya bi kon dañ koy folli jël seen wax ñoom wala lii di alquran yonent bi salaay salaam qul uhiya la wax yu moo wàcc ilayya annahu stamaa nafaru min al jinni ñu xamal ko ni am na jinne yu la doon déglu te gëm nañu sax mais benn jinne boo qur'aana la ñu wax te lu ñu wax anchitu am déet te moom xamu ko woon waa léegi ñoom ñoo gën a for yonent yi ñoom ndax ñoom ñoo gën a kawe yonent yi kon kon bu ñu naxante ni man dama jàppoon ni mooy li ma la wax xam nga dellu ginnaaw in humu illa ñu dal dañoo ñun dañoo wàcc jinne moo war a tiitaroo ne am naa nit waaye nit du tiitaroo ne am naa jinne ndax yonent yi yàlla yónni woon wa maa xalaqtul jinna wal ins illa illa li yaabuduni maa uridu minhum min risq wa maa uridu an yut'imun sëriñ bi kon jinne nit munu koo nit mënul am association ak jinne di ko doxalal benn ndigal wala dara day fekk yàlla jay la loolu istidraaj dafa am istidraaj ñu bàyyi la ngir bu ëllëgee nga nekk responsable de tes ngay doxee sa njort waaye ñoom ñooñu di contrôler jinne yëpp mënuñu def benn geste bu wane ne jinne moo réagir def lii wala mu def lale kon ñi ñi jàng euh, histoire yont yàlla Souleymane dinañ comprendre li may wax alxuraan itam li mu wax xanaa duñ ko dindi kon ñoom gënuñoo màgg yonenti kon nit bu ñu indilee lu yonenti am andiwul woon ñun yonenti yi jommal nañu ba pare alxuraan jommal nañu xam nga kan moo ñu mën a jommal mooy ki nga xam ne moo ñu gën a ragal yàlla waaye tiitaroo ay jinne moom ëpp naa def ndax yàlla ay malaayika la ñu boole kon niñ tiitaroo set ak jug ngir tatanazalu alayhimul malaayikatu am ci ñun. macha allah fi may jàllaat ba léegi ci sa gars yi laay ndax chiffre ci chiffre laay ñëw da gis ku toog ne le 15 boo ko boo ko am 1 plus 5 la te 6 boobu noonu ci mois de mars bi baaxu ci ndax moo tax. 15 boobu noonu lañ moytu di wala le 16 tamit tombeek mar tamit tombeek nangam nañuy moytu di wala nañuy moytu est-ce que ci euh, loolu wala nañ koy calculer noonu est-ce que mooy li ma la wax stratégie ñu jàng astrologie nga xam ne ci la ñuy faj gëstu ba kawe am li nga xamante ni nii moom moo di xam-xam xam sànq dinaa ñëw après ci wàllu tur après expliquer la atuwaar yi ak euh, li nga xamante ni moom mooy tax après tur bi liggéey mën a jaar ci tur ba accéder ci yow ci ban transformation lay mën a amee ndax en général ñii jël turu jigéen yóbbu ko ci sëriñ ngir jàpp jigéen ñoo la mën a firndeel lii sëriñ bi xaatim jox la nga suul dara du xew liggéey yi échec ci bind tur mm-hmm. def ci xaatim suul muy échec bu fekkonte ne yiy nangu benn la 10 000 bi yëpp dañuy échec ñu bëri bàyyi nañu sëriñ ndax gàllaaj te pourtant sëriñ bi day xaatim jox la ndomba bind si tur jox la ko te dara du réagir. waaw parce que comprendrewul transformation entre tur ak esprit tur ak énergie. léegi tur bi nan lay mën a jugee identifié wu ndax tey tey soo ñëwoon ci man. ne ma jàppal ma rama doomu soxna Seck. léegi rama boobu doomu soxna univers bi yëpp kooku rek moo fi tudd rama ak doomu soxna sekk est loolu logique na léegi tur bi war a dem ci kooku direct kan mooy wax tur bi nekk doomu rama sekk bii la exact ah léegi yow mu yow sëriñ bi lu la mën a waat ne doomu rama sekk boobu ndax kooku rek moo fi doomu rama wala après waa ji doomu rama sekk yëpp dañ koy topp kon tur leneen la léegi tur ñépp a koy tudd benn tur lu mat milliard de personnes ñoo koy tudd te kenn ku nekk xamoo sa morom te kenn ku nekk mun naa tudd Mamadou Lamine bokkuñu xel bokkuñu xalaat bokkuñu wërsëg bokkuñu am am kon xoolal bu fekkonte ni tur bi am na jeexital ci moom ndax kon du ñu bokk wërsëg ñoo bokk tur kon tur bi li muy influence bu muy am ci nit ki tur boobu signification moo war a wu si ñoom ñaar ñëpp waaye lu tax Mamadou Lamine bii ñu tuddee ko Mamadou moom mu ñëw ëpp wërsëg Mamadou Lamine bi ñu ko tuddee moom mu yor oto yore kee saretu mbaam la de kon li ma doon wax ne la tur bi la yàlla di woowee moo kon tur boobu noonu ku déglu sañ sambay dégg mu lay wax ne la tur boobu bu yeboo nga tudd muudu bu yeboo nga tudd waaye tur bi la malaaka yi di woowee tur boobu ci la la suñu borom di di wërsëgale di def la xanaa sañ sàmbay ku ko ëpp xam-xam fii gisuma ko mm-hmm. tur boobu noonu kon mooy ci la ci la secret yëpp nekk ngay dégg ku ne la lan moo tax kon sëriñ bi bu lay liggéey jaar ci tur lan moo tax yont yàlla Ibrahima amoon tur lan moo tax Muhammad déggal comparaison bi ñuy def munaasaba bi sax moo njëkk a xaram am ku ne alxuraan lu tax alxuraan am tur te alxuraan kàddu ya kaddu yu sell yenn ci biir mu màggal tur wi kaddu yi ne ci biir moo màggal tur bi te araf lu ñu sos la nag ci laay duggee nag ci li nga wax sànq chiffre chiffre dafa garaaw ndax araf lu ñu sos la ba ci alxuraan ji nga gis nii ñu koy bind di ko teg ndax waxu yàlla taabal bi àttan na ko. waaye su ma ñëwee dinaa ci ñëw dinaa ci ñëw matière bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam en tant que mu tudd Muhammad léegi lu tax révélation bi wàcc moom jëmmi Muhammad fan lay ne day déséquilibré lu fay des am bi ngir communiquer ak wax yu bi direct léegi foofu ana tur yàlla bi mu koy woo muy ñëw ci moom nu mu tudd du Muhammad waaye bu mu ne si asra lu mu wax bi abdihi est-ce que woowee na ko Muhammad parce que boobu noonu bi abdihi la xam nga lu tax boobu Abdullahi la léegi jóge na ci eh, darajay jaam génn sol yére am bi léegi dem ci nu mu tudd dëgg muy abdi yàlla xool ko ne ko yow abd nga yàlla bu la woowee waxee abd dafa am lu muy firi te pour pourtant jëmm nga waaye abd la la fa woowee abd boobu mooy jaam nga xam ne yàlla reconnaître na ak njaamam Mhm. kon ana tur ba. nekkatu fa nekkatu ba mu demee ba carton lu ko yàlla wax xalil te tur yooyu yëpp benn bu ne am na signification kon gis nga fa yonent bi bàyyi bàyyi kii ba fa awxaa ilaa abdihi ma awxaa riñaan gi yëpp déggoo fa turam abdi la ko fay waaye parce que boobu simmi na yére yére ba moo tax alxaqiqatul muhammadiya. kon tur bi fii la yemoon rek la waaye turu muhammad yemul ak yeneen tur yi dafa am lu tax mu tudd muhammad te pourtant turu Ahmad bi ak Mouhamad bi loolu émission la dinañ ci dugg. incha allah waaye tur min baadi mu Ahmad moom la ñu annoncé kon alxaqiqatul muhammadiya al alxaqiqatul muhammadiya bokkul alxaqiqatul ahmadiya fañ ko santee benn jaam fekke ko waaye Mouhamad nag mooy ku ñu sant cant gu bari di sax di sant ci sant ci moom est kon bañ koy tuddee Mouhamad wax yu la wala ilham <laughs> yàlla préparé na ko bu yàgg loolu bokkul de. déet bokkul. inna wajadna saabiran lu tax ci maqama bala yooyu garaat yu ñu takk la rek kon tur bi du dara tur bi du dara tur bi dara ñu bari jaar nañ ci am na ñu bari ñu ci jaar ndomba sangu suuru saraxe tur dara xam nga fu ñu mujjee jaay seen bi ñu dàq leen nit nit nit nit ni ko yàlla bindee bopp bi mu rëy te am na ñoo xam ne du ñu jaamu yàlla du ñu def dara te mënoo leen jàpp parce que tur bi identification la lay jàpp nit la ëpp ci doole ci moom seen l'énergie et la lumière. exemple la tudd mooy liggéey Allô Sénégal Serigne bi jàpp Lamine. waa kay léegi nag loolu laa lay wax ma ne la nag jàpp boobu buy am nag la Serigne yi war a comprendre lan ban méthode lay jàppee pour liggéey bi jàpp dafa am ñeent ci wàllu spiritualité benn bi ngir yàlla Lamine am na bàkkaar yu bari. te suñu borom bëgg na koo jéggal te faw mu yàlla nangu loolu ngir liggéey bi am sëriñ bi ñu condamné ko Lamine jël yiwu sëriñ bi ak yiwu noon boobu loolu benn la ci option spiritualité wala kii def loolu suñu borom namul texeem yu azibu ma yasha wa yarhamu ma yasha beneen bis topp nag mooy ci wàllu astrologie nan lay amee mooy bu fekkente ne tey par exemple da ngay liggéey nit ki ngir liggéey bi mën a jóge ci yow dem ci moom day fekk ni day am communication spirituelle maanaam tey day am jinne boo xamante ne allah day am jinne joo xam ni day rax ci biir liggéey bi tur tur boobu ñuy utiliser ba jinne bi ñëw léegi jinne boobu noonu direction wu nit kooku noonu nga xamante ni tey sëriñ bi wax na ak moom ba mu ba mu tegtal ko nit kooku léegi jinne bi moom mooy identifier ji kooku ci tur bi lay jaar def repère astrologie ba mën a jàpp waa ji loolu moo tax liggéey bi mën a jàpp bopp te du jàpp yeneen cër mais moo gën a gaaw c' est parce que boobu nag ci li ngay xamee ni tur du dara. kon donc c' bi parce que l' objet se colore selon contemplateur. énergie bi nekk ci yow ci lay nekk impulsionné wu tey sa xetu yére ak xetu yére duudu ak xetu yére Omar bokkul kon yow am na leneen looy dégager lu bokkul ak li ngay foog. kon foofu la liggéey mën a jaar pour mën a dugg mën naa laa wax nag dégg dégg ak réellement liggéey bi ci ban étape lay jaare ak communication bi am ci biir xaatim bi ak énergie ku ku ku ku ki ñuy jàpp ba communication bi am mu mën ko impressionné. mais ki ñu jàpp ba kon kon nekkul ay caaxaan wala ay xëpp saafara wala moo koy faj li ngay wax nii bàyyi kook ñi nga xam ni ñoom ñoom la dal am na ñu faju ba faatu. am na ñu dem ci sëriñ ngir bopp bi metti ba faatu. sëriñ bi lay wax dañ laa liggéey moom mënulaa tekki sëriñ bi la wax faru rab nga am mënulaa faj sëriñ bi la wax ne la dañ laa korte mënulaa faj kon tur day leneen wallahi azim bari na ñoo xam ne seen alal jeex na ci sëriñ te tur la ñu joxe ak ak sant te sëriñ bi mënul defar seen mbir te tur ak sant la leen laaj kon tur leneen la sëriñ bi ñi ku mu neex nga weddi ku mu neex nga gëm bu doon waxtu wi ñu ñëw ci atuwaar yi ak ak yooyu yëpp wax la ni yàlla bindee nit keroog ba mu koy bind euh, laa tarjuna lillaahi waxaara wa qad xalaqakum atwaara mu bind ko ci ay atuwaar léegi nag science spirituelle fi muy commencé mooy euh, bi mu bi mu euh, bi mu jëlee nit ki esperme di ko yóbbu adhérence est-ce que deful temps amul temps bu mu def 28 jours yi ci la variation bi yëpp di am lu tax 28 jours astrologie ñëw na lu tax yàlla tànn ay jour nombre de jours bi nit day jóge fii daal di dem ci beneen atuwaar jóge si boobu dem ci beneen jóge ci boobu dem ci beneen ba keroog muy taxaw nag nit suñu borom xam nga lu mu ko wax as afa xasibtumu annama xalaqnaakum abasan xam nga nu mu ko doon woowee hal ata ala insaani xiinu min ad-dahri est ce que xam nga ni ñoom bu ñu texee dee bu ñuy texee ak bu ñuy texee di yëpp yàlla da jox daraja selon ci jaamu yàlla bañ jaamu yàlla ba am martaba boobu ci la ñuy texee am bi day dominer nga jël tur boobu tur boobu ngay tudd mm-hmm. muqarrabuuna yi ñan la lu tax ñu tuddee leen wa saabixuuna saabixuun ulaa'ika al muqarrabuun fi jannati naim wujuhu wa wujuhu yowma isin alayha abara taraxoxa xatara ulaa'ika humul kafaratul fajara am na solo buñ toppee nii mën nañoo dem ba xaaji guddi te fu ñu la cuq rek xam-xam la génn comme ni ma wax rek savant la boo xamante ni ñu mën a jëriñu ci moom te ñuy jëriñu jamono ji ci moom bari na mais partagé ko bëgg Sénégal gi yëpp jëriñu ba ci ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ci diaspora bi jëriñu ci xam-xam bi nga xamante ni monsieur na na ñun Allô Sénégal ñu tàqalikoo ak moom di ko seet si saa su ne rek ngir xam-xam boobu ñu ñaanal ko yàlla rek mission bi nga xamante ni mi ko ngàlloo bëgg koo yëgale yàlla ko yëgale ak sa bopp ñuy jàll dañuy dem ci actualité donte ka nekk na loo xamante ni faaw ñu wax ci bi ñu njëkkee moom mooy ci procès de saisie. Mhm. keroog yaa ngi doon wax ne deret yi nga xam ne ñu ngi dugg ci réew mi baax ndax esprit yi ñu ngi ñëw di ci di ci di ko di ko di ko di ko mar ñu ngi ñëw di ci dund di ci amat force est-ce que le procès de saisie boobu noonu liñ ci nar a wa bëri la muy muy wàllum wàllum wàllum jàmmaarloo wala yooyu noonu ñu ñaan ko ci yàlla mais est que tamit bu ci amoon du taa Sénégal gën a nekk ci crise Eh, bismillahi rahmaani rahim euh, mu ñëw euh, tuuti ci avant actualité bi am lu ma la am lu ma fàtte souligner par rapport ak euh, am lu ma fàtte souligner par rapport ak maladie maladie yi nga xamante ni bëggoon naa ci tuuti référé wu pour mën ci expliquer quelque mooy en général damay faral di gis nit yenn ci nit ñi. dem ci sëriñ daal di jël mille fay gisoo dara. nga dem ci beneen sëriñ fay 200000 gisoo dara nga dem ci beneen sëriñ fay 400000 gisoo dara xam nga lu nit ñi comprendrewul souvent astronomiquement day am ñoo xamante ni euh, cat maanaam làmmiñ dafa dem ba percer seen ba maanaam ba ba fàtte seen wërsëg léegi ki nga xam ne làmmiñ daf koo jàpp ci xaalis ba pare kooku mënul jël xaalis fay si sëriñ ngir am li bëgg loolu moo waral en général astrologie di am lu muy feeñal ci yenn ci ay instruments moo xam moyen lay doon moo xam matériel lay doon moo xam loo xamante ni ni objet lay doon wala leneen parce que day fekk ni astre bi dafay dëkk day joxe beneen description joxe beneen sign beneen signal pour nit ki bu defee sarax bii nii wala mu fayee lii wala mu joxe lii weexal si la mbiram di gën a gaaw que mu joxe xaalis moo tax en général ñu bari ci sëriñ danañu joxe xaalis joxe lépp mais sëriñ bi war na mun a comprendre astrologie wu nit ki ba nit ki bu ñëwee nga xam ni kii xaalis la war a fay am na ñoo xamante ni du ñu fay xaalis xam nga lan la joxe. dañuy jënd maanaam euh, dàll wala ñu jënd lu mel ni euh, montre wala ñu jënd lu mel ni euh, lam lam xaalis wala ñu jënd par exemple lu mel ni benn moto wala velo wala wala leneen. ou non par exemple échanger ko ak loolu nga xam ni moom mooy euh, moo war a faj aajoom mais loolu li beneen technique la boo xam ne jarul ma koy wax mais li ma la bëgg a wax mooy bari na ñoo xam ne dañuy jël seen alal jox ko sëriñ mu ñaanal leen fekk ne cet da leen a jàpp ci li nga xam ne moom moo di seen làmmiñ làmmiñ da jàpp ci seen wërsëg kooku mënul neexal sëriñ ba am lu mu bëgg beneen bi si mooy wàllu cat da ngay dégg Sénégal ñu koy wax làmmiñ ci laay ñëwee nag ci actualité boobu gën laa leeralal da nga bëri ñoo xam dañuy wax wàllu làmmiñ nit ki cat da koo jàpp cat da koo jàpp cat da koo jàpp keroog wax naa la man la ñaata nit la ñuy tudd par jour yow ñaata yoon lañ lay tudd par jour man ñaata yoon lañ may tudd par jour wala làmmiñ bu doon rey ndax dinaa dund nangami at yooyu yëpp te làmmiñ li ma dugg ba chaque jour kon làmmiñ nan lay def ba am accès ci biir nit loolu la ñu war a wax kon foofu ngay xamee ne la ma doon wax dëgg léegi tur mag jëmm bu fekkonte ne tur turu nit ki moom mooy jë jëmm ji. mooy am bi boo ma woowee boo ma bi rek kon affaire yi bi dañ koy woo nangami yoon te jëmm ji. làmmiñ bu bon nag fan lay transformation wu làmmiñ bu bon fan lay jaar en énergie ba mun a accéder ci li nga xam ne moom moo di réceptacle nit ki ci domaine wërsëg ndax yàlla lu wax yonte bi alam nasrax laka. sod rek laka sod rek. da ngay dégg ñu naan la yow danga am wërsëg te wërsëg ñu ngi koy xamee ci dënn góor léegi lan nan la làmmiñ di ñemee kon ba bloqué sa wërsëg moomoon làmmiñ nan lay demee nan lay demee làmmiñ dem ba mun la bloqué c'est parce que kon c'est spirituel parce que yow déjà da ngay naan kii saa bu fu jaaree ñu ne xoolal Moodu nu mu rafete saa buñ fi jaaree ñu ne xoolal Duudu nu mu rafetee wala saa fi diw jaaree nga ne xoolal diw nu mu rafetee mm-hmm. pourtant yaa ngi koy catu mm-hmm. mais cat yooyu noonu kañ lay dajaloo ba am nu mu mel pour mën a àgg ci kooku ba mën ba mën koo yàqal moo tax nga dégg ñu ne la làmmiñ bu reyul semmal ndax da lay dugg kon fan lay jaar bu dugg la loolu nag mooy nit ki nga xam ni làmmiñam dafa am tooke. Mhm. borom bëtu tooke yi boo demee jàng alxuraan di nga ko fekk boo jàngi jawharu nafis di nga ko fa fekk. boo jàngee yi tamit euh, ci xadis yi di nga fa fekk borom làmmiñ nga xam ne borom làmmiñu tooke lañu. ndax sëñ bi wax na wa sari sixrin wa sari xalqi insihimu ma ajihimu wa zawaati summi yàlla wa zawaati summi mooy borom bëtu tooke yi ñi nga xamante ni lu ñu xool mu yàqu. waaw kon bët ak làmmiñ kañ la ñuy àgg ci mën a lor al aynu xaq wa lisaani xaq la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon. wa yakaadu lazina kafaru la yasiquuna bi absaarihim lama samiu zikra wa yaqulu innahu la majnun wa hum ila zikrun lil alamin na circonstance de révélation verset bi lan la woon lu taxoon verset bi wàcc ci xare boobu kon donc nañu xam ne làmmiñ ak bët nekkul nii rek ak bët rek ñu ne la làmmiñ dala ja bët dala ja faw nga xam ban type ban type la ban bët bu bon la ak ban làmmiñ bu bon la li làmmiñ di bëri yépp nit dinañ bind faatixa bi ni wa iyakaadu lazina sangoo ko ba sonn te làmmiñ du ci yow ñu jox la saafara bind la ayatul kursi te dara du deñ mooy li ma la wax sànq ma ne la kon jinne mun na décoder nit te bu ko décoder yow junniy ayatul kursi yi mënta tax yow sëriñ bi ba vérifier code bi munoo ko parce que su sama téléphone bi tey su amoon code. ma jox la ko nga jàng ci 1000 ayatul kursi téléphone bi du ci jéego. te pourtant ayatul kursi day jëriñu waa léegi lan moo tax ayatul kursi mënut a tijji lii xanaa ayatul kursi du jëriñ. si kon l'estil parallélisme inégalitaire dañuy jël ñaar li leen comparé te bokkul. loolu moo tax ba tey may dellu siwaat di dëggal ne la tur moo jëmu jëmu ji moom ak tur bi. ndax yow yaay yow yaay léemu raay ko sa kaw te du àgg ci am bi nga tëdd di gént am bi dem yoonam ba fa jëmm ji bu yàgg jëmm ji raayu nga def nga lépp ñàkk gi nga ñàkk xam matière ak esprit ak am moo tax nga sangu ba sonn boo tëddee gént sëy te saafara bi nga sangoo nga sangu ba sonn umu te pourtant matière bi ngay ragg rek am beeg esprit bi yoru wërsëg bi xaajoo ko jege moo tax du am benn influence foo toll yaa ngi umu am na ñoo xam ne boo leen waxatee sangat dañ naan damaa sangu ba léew am na ñoo xam ne ay valise u gàllaaj lañ denc te pourtant sëriñ bi ci tur bi la jaar bindal ko ne ko lii bu ma la ko joxe sa tur dina kawe ñëpp dinañ la dégg te pourtant calcul bi sëriñ bi def dafa war a fa naaw makaana aliya ibbi affaire yi dugal ko ci wala wala defal defal nangam ah, wa alxaytu aleyka mahabatan defal la ci ay bayre def sa tur kenn du la tudd ñu amaana ñi la daan xam sax daawuñu la xam lu tax tur bi réagirul mm-hmm. li ma lay wax nii ñi sonn ba wër ci sëriñ yi ba sonn ñoo mën a dëggal li ma la wax kon ba tey maa ngi taxawaat ci ne la jëmm moom ak tur wi fekk nga xam jëmm ji li ko composé ñetti matière yépp mais ki ñëw nag liggéey jàpp ko mooy ki nga xam ni su ma radadnaahu asfala saafiliin moom moo jugee ci martaba léegi euh, euh, maanaam jë jëmm jugee ci martaba insaan wàcc ci ba matière bi bu boobaa nag matière bi ak tur bi ginnaaw ñoom ñaar ñoo juboo liggéey mën na faa am liggéey mën naa jàpp kooku ndaxte boobaa kooku wàcc na dimension wu an laa taxafu wala taxzanu ndax bokkatu ci awliyaa ullaahi te awliyaa laa xawfun alayhim wala hum yaxsanun du ñu tiit du ñu ragal moo tax foo toog sa di def tëf tëf tëf da ngaa déséquilibré toog di tiit da ngaa déséquilibré foo toog di jékki di sikki sàkk am na lu nekk wala amul lu nekk fi loo mën am da ngaa dëkk dëkk déséquilibré bokk goo ci awliyaa yi ndax awliyaa laa xawfun la yàlla wax laa xawfun alayhim wala hum yaxsanun kon nag bu ñu ñëwee ci deret ja nga waxoon ci wàllu actualité ñu xamal la ni deret dafa nekk lu sacré ci kanamu suñu borom te royaume bi ñu nekk nii le royaume terrestre ñu bëri le monde des dimensions la ñu ne xam nañu lu tàng lu sedd mënuñu xam influence yi am ci le royaume satanique te en général Iblis dafa gëm éternité ak arbre de vie te lii moo tax muy créer li nga xam ne moo di faay yi am yépp sajaratul xulli wa mulkan laa yab laa daf koo gëm gëm googu mu ko gëm moo tax muy liggéey liggéeyloo mbindee fi ci seen biir di créer ay ay genre circonstance ak cérémonie deret yu bëri ji di tuuru ñoom ñu mën a di récupérer deret jooju ngir mën a attaqué ci ordre bi moo tax suñu borom sax dane inna zayanna sama a dunya bi zinatil kawakib te wa xifzan min kulli sheytaani marid laa yasmauna ila al mala il aala wa yuqzafuna min kulli janib yàlla sax dafa protéger trône bi contre toute diable rebelle léegi boo déggee kon ñuy Euh, jinne mënul attaqué mënul attaqué nii wala moom suñu borom sax dafa bi ziinatil kawaaki wa hifzan min kulli shaytaani marid bu protégé wul ciel bi ñoom ñu yéeg ci kaw sàcc ay information attaqué ordre bi. mais ci procès boobu laay des ba léegi ndax gis nga ni ndëgg sërëx la dëgg ci ci diggante Ousmane Sonko ak ci diggante ko ci bi ak ki nga xam ne moom mooy jiitu réew mi est-ce que gëmoo ni loolu tamit ay ndëgg sërëx mooy li ma la wax sànq mani la. en général stratégie satanique du jug ci suñu réew ndax seytaane yi dañoo yor seen laboratoire di liggéey jinne yi dañuy liggéey ndax inna iblisa kaana minal jinni fa fasaxa an rabbihi dafa bañoon ndigalu borom bi weddi ko léegi nag ñoom dafa am circonstance yoo xamante ni moment bi muy am dañuy préfité à l'occasion ci certaines euh, occasion yooyu pour mun a gën a ñoŋal yokk seen i instrument yu ñu mën a jumtukaay yoo xam ne ci la ñuy mën a gën di faagagalee mbindeef yi di leen manipuler di leen def loolu lu ñu bëgg def. te yoo ah. ndax si biir projet boobu noonu euh, mënuma ci sori ndaxte ñëwagul waaye li ma ci mën a wax mooy euh, ñi nga xam ni dañoo nekk ca biir te ñoom mu leer na leen ni lii ñuy def ay fexe kese la. Mm-hmm. nañu fàttaliku seen diggante ak seen borom ne bés dina ñëw suñu borom laaj leen yow ma yawma tasu alsinatuhum aydihim wa bi bima kaanu yaamaloon nañu fàttaliku loolu ba tax na kon ki nga xamante ne nii dafa dafa dafa dañoom ñi nga xam ne dañoo bokk ci mbir moomu tey tey waajal ay fexe wala leen lu mu mën a doon ñoo xam lañ ca mën a jublu te te yàlla itam xam na lañ ca war a jublu bu fekkee ay fexe la nañu sóoraale seen diggante ak seen borom bu fekkee du ay fexe itam ñu ñaanal leen yàlla defal leen jàmm bu mbir yooyu ñuy sàkku yëpp ñu mën koo am wala boog lépp loo xamante ni dañ ko ciy jub dañ ko jug di ko ciy def te fekk ni justice moo tax yàlla leeral loolu yépp ki nga xamante ni moom mooy Reug Reug Sa Thiès nee nañ ay jinne ba ni mu jeexee Reug Reug nañ démb ci làmb yi. waaw seetaanu ko nag boobu maa ngi ci maa ngi ci maa ngi ci maa ngi ci. ay jinne bokk comme que seetaanu est-ce que ay jinne am nañ ba tey itam li ma la mën a wax daal mooy nit mën na convertir énergie ci ki xam astrologie wala koo xamante ni dem na ba yàlla jay ko moom istijraaj dem ba wàññee dara parce que jinne balaa nit di am communication ak nit faw mu am lu manqué ci yow li ñi jàng taarix xam nañ li may wax am na ku ñu doon wax suq anmar ak satix ci jamono yonte bi saai ba muy ñëw te ñu te ñu ñu doon am na gisaane bu leen doon seetal koo xam ne dañ koo teg ci siège bi yaram bi yëpp nooy mu def nii di wax révélation bi nga xamante ni moo yonent bi war a ñëw di di di di joxe annonce yooyu kooku dafa am lu manqué ci moom te jinne pour mu agsi ci yow ba mun a dugg ci yow di xamal wala mu di la mën a jëfloo wala nga mun ko yónni ak yeneen loolu faaw nga am déséquilibre maanaam faaw mu am lu manqué ci yow benn cër wala lenn wala ñàkk benn benn benn wàll ci yow boo xam ne matul jinne dugg foofu mottali ko en énergie complété la nga xam ne léegi su boobaa yow acte bi ngay def si mix day fekk mu jaxasoog yow di lay di la di la di lay di la wax yu ndax yàlla waxal nañ ci alxuraan iblis yàlla maanaam dafa dëggal njortu ñi nga xam ni da leen da leen daan wax yu kon donc wa inna sayaatina la yuuxuuna ila awliyaihim luy jaar di lu jaadiluku waaye wa in ataxtumu innahum la na bu ngeen leen toppee dangeen nekk ay yéefere kon donc da ngeen nekk way weddi léegi kon ma xamal la ni kon nit ki ay nit mën nañu def ay fexe ci wàllu xam-xam ba mën a jël jinne boole ko ak nit waaye nag su boobaa buy am yeneen façon yeneen façon yoon lay doon comme ni ma la ko waxee sànq day fekk que ni nit ki maîtriser système yi wala boog mu am istijraaj nga xamante ni moom ci boppam ñàkk sellam ak ñàkk gi muy ñàkk a maanaam am ngëm suñu borom jay ko ba lu mu lu mu wax wala lu mu xalaat ci loolu njort googu dëggal ko waaye nit tamit mun na liggéey mun na fexe ba convertir jinne ci ci pouvoir am mooy ni ma la ko waxee sànq ndax fekk jinne bi am na lu muy bëgg loo xam ne nit ki mun na ko convertir ci lool waaye loolu faaw nga comprendre système yi ma la ba mun ko jëlee ci création am ànde ko ci création bi doog koo mën a liggéeyloo. macha allah monsieur dem ci ñi allah euh, ni may ni may ni may li may li may bëgg a wax mooy. Mm, di gën a ñaaxaat sénégalais yi di leen wax ni euh, fépp fu ngeen mën a jóg di fa dem na nekk fu leen doy waaye tam ñi ñii ñaan nañu gëstu ndax xam-xam yàlla dafa bëgg nit mu am ko te jëmmi xam-xam day dimbali nit ndax xam-xam mooy uutul ilma darajaat te nit ki lépp lu muy mën a dugg xam-xam moo ko mën a nital loolu ba mu daal leer loolu moo waral nit ki war a boole ay xam-xam yi muy boole yépp ginnaaw ci lii lay liggéey mu xam science xam astrologie bu ko mënee xam énergie jàng biologie bu ko mënee bu paree ci loolu mu jàng espace bi jàng temps su paree ci loolu jàng anatomie xam organes yi organe bu si nekk fonction am yooyu yëpp bu ko xamee dina ko mën a dimbali moo tax dinañu ci beneen émission dinañu ñëw xamal la maanaam chaque organe a son propre cerveau ndax organe bu ne am na propre xel mu ko yàlla jox boo xamante ni euh, ci lay doxalee lépp lu mu war a doxal moo tax ay paralysé yooyu yëpp di mën a am ci li nga xam ne moom moo di yaram bi ginnaaw lépp du fi xaj itam euh, dañuy ñaan rek ngeen gën ñu di topp ci chaîne bi incha allah dinañu ñëw di gën a leeralal ci suñu ko waxtu yi di may ngeen gën a xam fi ngeen di taxaw ñuy kontaan bu baax nag waa bitim réew yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di wax ni itam gis nañu euh, wax dëgg yàlla seen seeni acte ak itam wax dëgg yàlla seen confiance ak euh, ndimbal li ak lépp loo xamante ni rek maanaam ñu ngi koy def jëmee ko ci man di ñaan yàlla mu fay leen ko nuyu mbokk yépp macha allah ci question monsieur fi may tëjee mooy benn benn laa lay jox garab yi ndax parce que ni ma ko gisee nii xam naa ni bari nay njariñ stimulateur bi laay njëkkee tey. <laughs> stimulateur waaye stimulateur moom baat bi mooy day yee day fortifier day fottali ndax bëri na koo xam ni dafay am lu ñu tuddee problème mu nerf wala léeg-léeg biir bi. reesal ñam maanaam lu tuddee cholécystokinine wala polypeptide pancréatique wala la bile ci biir vésicule biliaire bi. Mhm. wala ñaari hormones yooyu nga xam ne reins yi ñoo koy defar muy cortisol ak cortisone. wala li ñu tuddee gastrin yooyu nga xam ne dañuy participer ci reesal ñam am na ci yenn ci liquide yoo xam ne su wàcculee. nit ki bu lekkee du rees. day dem ba ampoule rectale bi ak kanaal anaal maanaam déchet bi buy dem toilette déchet bi day wow du génn du am ndox parce que liquide yi wàccuñu loolu itam mun na indi reflux reflux nit ki gémmiñam di xeeñ fu mu toll fekk manqué wul zinc manqué manqué wul fer manqué wul dara mais ñam bi nekk ci biir bi te génnul mooy waral xeetu gémmiñ gi kon donc euh, loolu moo tax ñu defar stimulateur bi day yee waaye itam mun na yee siditu koo xam ni amul puissance bu baax mais boobaa day cumuler ak muraake bi mais stimulateur bi daal dafay yee waa kay muraake bi moo nekk ni voilà kii rétrocontrôle positive la rétrocontrôle positif boo ko déggee mooy yaram bi souvent day defar ay rétro am na ay rétrocontrôle négatif yu nekk ci biir léegi léeg yaram bi day day day day day am lu muy defar te cër yi soxlawuñu ko yaa ngi dégg moom lu trouble métabolique la boo déggee trouble métabolique mooy lu dollee ko ci yaram bi te yaram bi soxlawu ko. foog mu génnee ko ak li nga xam ne yaram bi dafa wàññeeku ci moom te mu soxla ko. ak li nga xam ne da koy defar te cër yi soxlawuñu ko. lii lii mooy régula lii régulateur la mu ngi mel ni amortisseur rek kii rétrocontrôle positif la ki nga xam ne dafay day ànd ak soxnaam te day gaaw a àgg te dysfonctionnement moo ko waral. wala stress wala bokk ci euh, érection bi moo dul dëgër mu am problème mu durée d'érection mun na ko dimbali. mburaake kese da ngay mëq rek. yaa ngi dégg waaye itam mun na la lekkloo nag ba nga tiit waaye itam mun na tax ballonnement bi nekk ci biir bi mu deñ mais su boobaa nag bu dee da nga bëgg a boole ñaar yi bu dee danga am problème mu digestion boo xamante ni waaw ak problème puissance waaw léegi ñaar yooyu noonu ñaar yi boo leen cumulé da ngay jël bi di jë bii par ñetti kubéer di ko boole ak mburaake bi bu fekkee itam biir bi dafa rëy itam aussi biir bi dafa rëy ba tey mun na ko kii moom multidimensionnel la kii moom maanaam composition yi ma ko liggéeyee lii yëpp sama labo moo ko liggéey mais produit la bu doywaar boo xamante ne nii euh, du ku nekk laa koy jox pot yi ni mu toll rek lay toll gis nga ko noonu ni muy toll rek lay toll dugg nga ci biir gis nga ko pot yi nii lay toll mais kii dafa am solo ci wàllu asthme wàllu estomac yaa ngi dégg waaye itam aussi dafa am solo lool ci góor bu fekkente ne tamit dafa ànd ak li nga xamante ni moom moo di Euh, stimulateur bi ba tey mu nekk support ndax garab day am support. maanaam lii contrôler garab bi ba ne ko yow ci tànk bi nga jëm. loolu mooy support maanaam tey day def situation hypertonique bii day ibbi cellules yi xam nga hypertonique dafa am ak hypotonique hypotonique mooy bu cellules yi tëjoo hypertonique mooy bu cellules yi tijjee ko garab gi dafa am day créer situation hypertonique d'abord maanaam il faut que mu ibbi cellules yi ndax garab doo ko naan rek mu dugg sa cër de. Mm-hmm. il faut que mu ibbi cellules yi lu ñu tuddee molécule xam ne xam nañu li wax ci biir médecine day mel ni ay chaînes yu follicule cellules yi pour mu tijjeeku il faut que garab bi en même temps amaale li nga xamante ni moom moo di euh, stimulateur waaye tam amaale li nga xamante ni moom moo di loo xam ni def euh, kii boo xam ni hormone boo xam ni formule scientifique bu benn hormone boo xam ni dafay tijji li nga xam ni moom moo di cellules yi cellules yi kon bii day tijji cellules yi accédé directement ci biir yaram bi te kii boo ko jotee day communiquer dafa amaale lu ñu tuddee phytohormone mooy hormone végétal phytohormone mooy communication euh, végétale maanaam garab gi lu tax mu mën a communiquer ak cellules yi loolu après dinañ ci duggaat. dinañ ci loolu émission la. incha allah waaye antibiotique bi. laa la indi tey antibiotique la ndax am na ñoo xam dañuy am lu ñu tuddee euh, syphilis ndax ñetti syphilis moo am. am na ñetti syphilis bokk ci suñu gëstu syphilis du sang syphilis vénérienne ak syphilis endémique am na ñoo xam dañuy am syphilis ñu leen di faj ndoxu siti ñu faju ba sonn fekk syphilis dañu am amuñu ndoxu siti loolu moo tax sa yaram di xasan wala sa yaram di tàng wala yooyu wala ngay am ay infection wala sa biir bi di tàng ci biir di jooy wala ngay am ay góom yaa ngi dégg wala doo nelaw guddi gi wala ngay gaaw a mer wala sa xol bi di jeex yooyu yëpp fekk ne ay dérangement euh, hormonal la ay dérangement la ci biir yaram bi te faa nga comprendre hormones yi bu du woon waxtu bi ma limal la 63 hormones yi adénine vasopressine androgène aldostérone adrénaline adiponectine acétylcholine acide abscisique oxine acide gamma aminobutyrique brassinosteride corticolibérine corticotrophine cortisol cortisone ba mu jeex si hormones yooyu benn bu si nekk xam nañu formule ko yor loolu gëstu la boo demee ci nerf crânien yi douze nerf crânien yi tamit boo bëggee yëpp mën nañ la ko limal olfactif optique oculomoteur trochléaire trijumeau abducens vague euh, vestibulo-cochléaire euh, ba mu jeex yooyu yëpp ay nerf la yoo xam ne ci bopp bi la nekk te itam ba mu ci kaw wàcc kii antibiotique la antibactérien la en même temps purification day purifier sang bi en même temps antibactérien la en même tamit aussi li nga xamante ni moom moo di antibiotique la kii itam dafa doy waar. garab la bu yéeme bëri na jàmm bëri na salaam bëri na ñoo xamante ni fii ñu amee perturbation ak perturbation bu mënti doon ci sa côté wér-gu-yaram ci sa côté cerveau ci sa côté esprit lépp lu mënti doon rek boo waxtaanee ak moom monsieur Fall Bio am na ci saafara boobu. képp kuy seere. amee constipation moteur wala constipation partielle wala constipation sévère muy hémorroïde bu yàgg ndax dañu naan hémorroïde feebar la hémorroïde du feebar de hémorroïde cër la ci biir yaram bi hémorroïde ci boppam mooy feebar moom hémorroïde yi ñooy feebar ñoom ñu tuddee leen inflammation des hémorroïdes mais hémorroïde sax du feebar hémorroïde cër la rek ci bu nekk ci biir yaram bi moom mooy feebar kii nag bu hémorroïde yi feebaree kii moo ci mën dara moom dañ de mais nag man du ma jaay garab faaw ma consulter la ba pare xam li la dal doog laa mën a jox garab mooy yi nga gis ne verte bi ak jaune bi yooyu yëpp aussi loolu la ñuy liggéey yooyu tamit xaw ma ndax gis nga tur yi yi si nekk ma ngoog gis nga négatif bi kon négatif ndax positif bi day dem ba ëpp maanaam mi ngi mel ni kiy lekk di lekk lekk di ko jariñ ba bu dem ba gras bi ëpp ci moom te pourtant positif bi moo dem ba yéeg fa nga am retour contrôle négatif boo xamante ni moom mooy ñëwaat waaye rétrogradé ko wàññiwaat graisse bi amortissé ko léeg-léeg yaram bi pourtant garab yi garaawul de yaram bi de dafa am lu mu soxla rek pour liggéey feebar benn dérangement la rek mais yaram bi dafa am lu mu manqué danga koy dimbali rek mu faj. mi ngi noonu mbokk comme ni nga mbokki internet yi comme ni nga ko waxee léegi rek ñi ngi fii cabinet monsieur Fall bio gis ngeen organisation bi nga xamante ne teg na ko ci bunt bi ci euh, garage bi mooy. benn organisation boo xamante ni bu bu am solo la ñu fekk fi ay ndaw yoo xamante ne ay jigéen yu engagé yu déterminé yoo xamante ne ñoom ñoo koy jàppale ci liggéey bi ñi ngi fekk tey euh, kenn ci ndaw yi fas yéene waxtaan ak moom ci produit yi nga xamante ni fekk nañ leen ñuy taf étiquette yi war koo jëmale ci bu nekk boromam bëgg mu jot ci balaa ngoon wala sax balaa guddi balaa tëdd soxna si ñu ngi lay nuy waa sëñ bi ñu lay fay. waaw ñi ngi mën nga ñoo wax organisation bi fi fekk macha allah ngeen def seeni i blouson taaru yaañu lool macha allah waaye ñu mu gis ngeen di taf étiquette yi mel ni bii ay programme ay da ngeen koo programmé ay commande jàmbur la. waaw voilà sëñ bi gis nga ñu nii nuñ nekkee nii ak organisation bi équipe baa ngi nii ñoo ngi taf étiquette yi di taf di defar butéel yi di teg surtout juste mooy garab yi ngeen di gis fii lépp presque ay commande la yoo xamante ne dafa war a dem extérieur. seeni borom ñu ngi koy xaar te du coup monsieur Fall Bio moom daf fi nekk pour askan wi surtout ñoo nga xamante ne ñoo nekk ci diaspora bi presque li nga gis ni yëpp ay commande yoo xamante ne fa lay dem mm-hmm. moo tax ñoo ngi nii taxaw temm di ko defar ndax moom bëggul kenn ku ko yónnee xaalisam ba pare say garab di am retard moo tax fu mu ne nii gis nga ñoo ngi taf étiquette yi def de tout de telle sorte ko ñoom dinañ mën a jot seen produit ci anam bu mu gën a gaawee via GP yi. ngi mm-hmm. nga xamante ne ñoo ngi dem di ñëw. comme léegi nee nañu fenn soreetul. waaw ndax bu fekkee fii ci Dakar wala si biir Sénégal oto yi ñu ngi koy teg muy dem di yóbbu garab yi bu nekkee extérieur aussi GP yaa ngi fi. te wax fa dëgg yàlla moom ci ci ci extérieur boobu laa parce que ku xam monsieur Fall xam ni il est très sollicité. ñu bëri ñi ngi soxla ay garabu monsieur Fall. Mhm. est-ce que ñi nga xamante ne dañoo yàqam ni seen garab bëgg ko jot ci une semaine wala ci. Euh, wala ci sax benn temps bu record ñu soxla seen garab nekk extérieur. Mhm. est-ce temps boobu noonu di ngeen leen ko garanti. dañ koy jot dañ koy jot incha allah avant temps bi ñu leen di jox sax dañ koy jot parce que garab yi bu waree dem dañuy taxaw teem def ci fulla ak fayda. Mhm. Euh, defar ko taf lépp euh, ñu joxe ko ñu envoyé leen ko via GP fu mu nekk nii kuñ ci waxoon d'ici une semaine wala d'ici quelques jours mhm. avant date bi ñu la jox noonu sa garab yeeg sa lépp di nga ko jot parce que moom dafa farlu si li muy def. kon garab yi nekk na yoo xamante da ngeen koy defar euh, par commande ngeen di defar wala nu mu nu mu kiiwee. waaw lu si ëpp par commande lay nekk. Hmm. parce que ñoom dèjà xamante nañu moom dugg sant nañu ñoom te seen aaju mi ngi faju si lu mu hmm. leen di jox. Hmm. moo tax gis nga li fi nekk nii yëpp ay commande la yoo xamante ne dafa war a dem extérieur. jërëjëf jërëjëf. kon mi ngi noonu mbokki internet Allô Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ëllëg seen benn émission jërë ngeen jëf ak monsieur Fall Bio.